bu doy sëkk jërë ngeen jëf basta baat la bu doy sëkk ngir tënk li tukkee ci ndaje mi magistrat réew mi doon amal démb ubbi l'observateur union des magistrats du Sénégal di kuréel gi jaboote magistrat yi réew mi ñoo doon conférence de presse démb yéenekaay bi nañu Ousmane Chimère Diouf ak ñi mu àndal li ñu doon ŋàññi ak di ko jébaane moo di xaxar ak sàllawlu gi ñenn ñi dëkkeeg justice réew mi ak juge ci réew mi la ëppoon ci wax ji nag l'observateur ne nañu Ousmane Sonko jiital parti Pastef moo ko moomoon ginnaaw kàddoom yi fi yëkkati woon keroog àjjuma gàll ko ci ndoddal justice bi waaye UMS nee nañu nit warut a jiital intérêt yi boppam ba tax muy critiquer justice bi source nañu muy Ousmane Sonko ak compagnie waa union des magistrats du Sénégal dal nañu ci seen kaw bu baax a baax ba xamal xamal leen ne li ñu bëgg mu dakk moo di saa yu nit jugee di dal ci kaw justice bi di ko critiquer ka xaxar ak di ko gar mbaaso te xamoo dara ba dara booloo jeex ci ni justice bi di doxee ñu dox dem ci xët mu njëkk la témoigné gisaat e ñi di songee justice bi ak wax ju ñaaw ji ñuy teg ci kaw justice bi ba noppi nag dellu sàkku ci ñëpp ñu respecté justice bi jox ko cër bi war Ousmane Chimère Diouf président union des magistrats du Sénégal li ñu wax ci xët mu njëkk si yoon kaw Le Quotidien ne kon jaratul justice di am ci réew mi la Sénégal bi ne ne waa UMS yamale nañu Ousmane Sonko tegaat ko palaasam lise ko ne ko ko teg ci wax ko boppam nee nañu politique warut a tax nit ki jàpp na yoon amul sañ-sañ ci moom leeral nañu ne ku naan magistrat yi ay ngànnaay la nàmmu teg ngir di sànk adversaire politique yaa ngi leen di tooñ ñoom duñu bara armé kenn kenn ki waral coow leen bambali di Ousmane Sonko mi ngi nii toog ci xët mu njëkk Sud Quotidien dend ñoom Khalifa Ababacar Sall ñoom Déthié Fall ak ñoom Aïda Mbodj journal bi wax ne ñoom leader yu Yewwi Askan de presse fa la waxee ne parrainage gi ñuy wax ci élection législative yi jarut jëme kaw ne ñoom waaye Yewwi Askan Wi ànd ñu ci tey ànd ñu ci ëllëg direct news nañu waaye Yewwi Askan Wi sóobu nañu cib defante seen digg président Macky Sall ngir mu dellu gannaaw ni démb direct news xëy na di ñu ko wax tey mu di li ñu bëgg Khalifa Ababacar Sall doon candidat ci élection législative yi di ñëw ak Ousmane Sonko mi bëgg taxawal beneen association des maires du Sénégal bu bokkut ak bi fi nekk fi mu nekk nii anki dina nee nañu ñaxtu yaa ngi mel ni tulleeg màlle di riirée fu nekk jëm ci wane seenu ñàkk ànd ci parrainage yi ñuy wax ci élection législative yi muy société civile gi di ñenn ci ay politique li ñu jàpp moo d Macky Sall cohabitation ci la tribune xëy ñu xibaar ne waa yeewi askan wi ak waa gëm sa bopp nee nañu duñu laal parrainage bi Bougane Gueye Dany ak gaayam tey ji la fas yéene saisir CEDEAO ngir ñu wax Macky Sall mu respecte loi bi témoigné nañu gaañi rejeté nañu parrainage gi ñuy wax ci élection législative yi muy waa yeewi di waa gëm sa bopp di waa yaanamar ba ci waa FRAPP ñoom ñëpp bokk booloo taxaw ne parrainage du fi am sursoi nañu waa direction générale des élections ndaje a jëfandikoo nationale des élections far na annulé lépp ñëpp ngi xaar ak a ngir bëgg xam fan la bébé Lansana mujj mooy xaleb juróom-ñaari weer bi dëkk Kédougou te ay param tëraloon ko ca néeg ba ñëw fekkaatuñu ko fa libération mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk ne xale ba feeñ na waaye fekkuñu ko ak bakkan dañu ko fekk ñu sànni ko ci benn teen ki ñu njëkk a tuumaal ci yëf yi nag libération nee nañu moo di wujju yaayam ba tax na ma nga gendarmerie ñu tëye cib garde à vue